sang bi ne sang bi nee na nee na waykat yi tey seen yaram dafa teel a tàng nee na bu ñu leen toppee ci rythme bi lay Mamadou ku jël jox sa moroom nee na ñu ngi ko soxlaa ca biir waxtaan wa nee na sang bu tedd bii kenn du ko werante dañu ko daan defal nii ba yàgg mu génn daal di yëkkati loxo bi ni doy na lay maxtaar uskuru la wax naa leen ne sikkar la bëggoon moom Seydina Isaa mi bañ naka ba kaamilu korite moo daan yëkkil boppam sikkar sa ca baatam bu neex ba comme baatu baayam ba nee na tàggkat yi ñun waykat yi nee na bëggul sax di tudd waykat ndax waykat moom dafa doy waar bu ñu leen bàyyeeg mbir mi noonu lay wëndeeloo ci sunu biir nee na fi ñu koy soxlaa ci léeg-léeg mooy bu ñu duggee ci biir waxtaan wa dëggantaan ne li sax lu baax la waaye nag nanu notal turu yàlla wi ndax moom yonentub yàlla bii loolu la bëggoon dañ ko daan defal lii mu génne daal tàllal loxo bi li len léegi nak uskuro la la wax ci xëy baam bu mag ba kon lay Mamadou neex lol, waye nak rabbul alamin mo tax ñu xam Isa ibnu Maryam rabbul alamin mo tax ñu gem Isa ibnu Maryam rabbul alamin moo tax ñu gëm waajuram sayduna wa maulana muhammadu limaamilahil mahdi alayhi salaatu wa salaam maulana rabbul alamin moo tax ñu gëm lépp lu mu wàcce ci téere ci yonent lu mu mën a doon fa maa bikum bi ni'matin fa min allahi nee na foog ñu wariyee ko li am guddi gi nee na bu ñu ko indi ci bëccëg bi wala déet nee na bëccëg bi ak xaasiyaam ak jagleem guddi gi ak jagleem lépp baax waaye nag bu nu fàtte sunu boroom te bu nuy ubbeeti sikkar si nañu ko ubbee laa ilaha illallah ndax mooy lépp mooy lépp sunu boroom may lépp nee na bu nu fàtte sunu boroom damay seetlu sunuy géew dañuy mel ni neex neex ba mom la ñuy topp ba fàtte sunu borom nee na bu ñu nuroog ginaar gi nga xamni pepp mañ cey wissel mom lay tim nur ca ba dootu gis kay kay wiss sa pepp ma nee ki wiss pepp mi nak moy rabbul alamin fa ma bikum bi nicmatin min allah lu ngeen am ci xéewal ci yàlla lu jóge xéewal nag du gën a rëy ginnaaw bi nu gëmee sunu boroom gëm Mahdiyu ak Isaa xéewal du ko gën a rëy looloo tax ma bëgg nuy tudd yàlla lu bari moom Seydina Isaa Rawullaahi xutbaa ma ngi fii waxto yu mel ni daanaka fàttali nit ñi mu ngi ciy dogu diñu indilaat waxi waajuram Seydina Limaamulaay alayhi salaatu wassalaam bam nu fàttalee kàddug sunu borom ca téeréem ba mu ni yàlla ko digle mu ni wallaahu amara bi takfiiri zikri yi لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وعسلا مام بايلاي عليه الصلاة والسلام من سابرم دفا ديغلي ñu baril ak tuddam wax naka yeterem ba ne yeen way gem yi na ngeen tuddu yalla tuddu gu suba ak ngoon suba ak ngoon moo tax seyxi maxtaar ni sang bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam daan na tudd boroomam mboolem ay waxtoom dem na ba ñu ne kii mooy bàyyi laa ilaha illallah bàyyi laa ilaha illallah ñaka topp ñooy waa laa ilaha illallah loolu nun rekk a ka am li tax bunte bi bugguma mu yaatu fa muy tàmbalee ak fa muy teeri du benn ay ay loo boobu léeg-léeg rek nit buruxlu ci dugal mbiri boppam walla déet man de sama wayjur yu tedd yii samay maam sax laay wax ëpp nu ñuy wayjur na sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam la mu doon dund ñu xam ko ñun jele ko ci sunuy wayju jele ko ci mag ñu bax ñi mooy tudd yàlla mënoon ko lool sama oustaz bu tedd ba maam xari laay ma nekkoon ca loxoom moom sang ba nee na ma jàng ci moom lu bari mu ne ma nu mu daan tuddee yàlla tudda gu yéeme la ne fa mu daan wéet boo bàyyee sa nopp nee na kurus gi ni muy dale yaa ngi koy dégg te da kay bennaatu tap nga defoon dafa noppi mu ne ci tap nga defoon dafa noppi ñu nag dañuy xëcc rekk muy jàll rek deux minutes mën nañ cee tasab léeg-léeg du ko mat une ñu ñu ñu ñu tasam ci loolu lépp ci xam lan mooy turu yàlla xam kan mooy sunu boroom ak boo nekkee ci mbiram naka nga koy teewloo bañ caa gaaw a génn ñii loolu lañ doon dund si karkat yi day dañ leen di sant di leen gërëm mais nag léeg-léeg itam buñ ci dugalul sunu loxo. lenn ci nun mu ci digal ci mbiri boppam ngir yeneen loolu nag lay mumadu loolu la ciy bañ seydina isaa ruwullaahi defa naa imaam saxir am na lu mu ci wax nee na seydi roowulaay ku la way am ngërëm fa jannati nee na kooku kon jar naa way walla déet jar naa way di ko am ngërëm ngay am ca jan àjjana kii si naay saa jar naa way jar naa way waaye nag am na lu ñuy wax zaddu saraayix mooy sakk yoon yi nga xam ni mbir a nga fay jaar te leneen man caa buruxlu léeg-léeg nga ubbi bunt ña ca war a jaar jaar ca jékki-jékki rek ku ca warul jaar burux la ca biir dugal mbiri boppam. dëgg la looloo tax damay bañ ñu fàtte yàlla ndax yooyu bu duggee rek dañuy fàtte yàlla te yàlla pour a fàtte. waskur rabbaka iza nasita fàttalikul sa borom boo demee ba mel ni boo koy fàtte ndax boo ko fàttee dugg ci mbir dugg nga beneen géew bu dul mosam kon lay Momadou ñii de ñoom la yàlla defar wóolu leen yónni ñu gën ci li yàlla bind moom mii ci la Seydina Isa nee na ulul azmi min rusul juróom lañu ñooy doole ji mu ngi ci biir sës ca rëkk di xalifab ki ko jiite di xalifab ki ko jiite topp ci moom sës ca rëkk mu ngi ñuy déglu bi isnillaahi ñun loolu la ñu gëm boroomi may la boroomi kéemaan la yàllaa ko pankal yàllaa ko defar mu wax te ba muy ndaw ana abdullahi aataani al wa jaalani xoolal li mu jëkk a wax ki mu jëkk tudd mooy sunu borom ba noppi tekki garaatam ne ab jaamam laa ana abdullahi دا دو دولي وخني اتابي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجلني جبارا سقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم عمد ويوم افحص يا لن يهدد لن ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يبترون كوكم سيدنا عيسى والله ولا ديت اه سانك بني ني دو لولو نو گم كي لا نيو دي تا لولو نو خم ني لو نو joxoñ ني توپ joxoñ بوبو بو كو ديزم خيل nag دافا ناني مبر mbër yu mel ni boo leen di way nit ne tuddal yàlla dangay ngay wàññi mbër ma oh bataan gënal bu fi nekkoon wax naa leen ko loolaay am ñoom dañu ñëwoon ngir taxawal loolu ci kaw suuf ngir suuf am sécurité suuf bu fi laa ilaha illa laa jógee turu yàlla jóge fi amatul sécurité baa xam ngeen loolu moo tax borom oote bi jël ka rawale ka jàkka ja pour bu tumurankee ci biti jàkka ja des fa nee na compte bloqué ko def ca jàkka ja ko Seydina Limaamu Laay alayhi salaam ndax mbedd mi ñoo jëkk bàyyi laa ilaha illallah ñooy jëkk bàyyi turu yàlla waaye mu ngi ko dugal ca biir jàkka ja ne fii kenn du mu tudd ku dul man boo may dëgmal si doo tudd kenn bàyyi laa alayhi salaatu wasalaam denc tur wa ngir mu bañ a réer ak itam boo jublu sa boroom na ko tudd ba sa xol féex nga xam ni lu dul moom nekkatul nga soog a soobu ca la ngay def laay Mamadou tudde leen yàlla du ayib wala déet tudde leen yàlla du ayib yàllaa ngi may dégg wax ji dëkk na da nga ci dégg lu ne waaye ndokk nañu ko jaral ba ñu koy defal Seydina Limaamu Laay منذ الإمام دو ألسان دو كمب لله الأمر نانا يالله كو خم دو غيسة سبب والله دو غيسة سبب موك نيوم غيسو ني سين بوب سي دارا يالله رك لا نيو غيس motax tax bu ñu demee ba kën tuddati ko ci kaw suuf ñi des ci kaw suuf mu tudde len shirarul khalq ñi gëna bon samay bindef la ilaha illa allah ah do ma ne xanaa ay julit nekk ñu fa ah kay julit ja nga fa ay doomi julit yu sàggane sikkar te nak ragalal baat boobu inna alladina kafaru من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها لن لكتاب أولئك هم شر البرية من نيو نيو يس كسامين بنديف واو نين دولي ndax bëgg nañu ni roog ñooñu ñi yonent sallallahu alayhi wasallam di wax ci ñoom أولئك هم شر البرية دادت من لا تقوم ساعة إلا على سرار الخلق. عند نبوتك كو دومي فك لو دول دي ياس غربون كي من دف يالا لا تقوم ساعة حتى لا يقال على الأرض لا إله إلا الله شبل الرواية الله الله àddina tukki mukk feeg nag nit ñi dematuñ di wax ci kaw suuf laa ilaha illa allah beneen riwaay ne feeg nit ñi dajatuñu ci kaw suuf di wax allah allah ñooñu ñoo tax ñu war a moytu tur yàlla moo téye àddina moo téye àllaaxira moo téye asamaan moo téye suuf moo téye lépp sunu borom sunu borom moo tax waaw loolu la bu ñuy wax loolu la ah lay Mamadou ñii lii moo leen indi woon ci kaw suuf ñu di ko dox ñu gaañ ñi lor ñi rey ñi faagaagal ñi sanq ñi sànq seen njaboot تاسين على جيرلن جير لا اله الا الله نين خم واي كات سربر ما صابر خول لين بياد سبحان ربك رب العزه اما يصفون دال لين جيسو نا يني غارانتي نالين وسلام على المرسلين دان والحمد لله رب العالمين am nañu garantie moy ñima taxawal ci kaw suuf yeuf sama tour di jop yàlla màgg tey buur turam woowu nay riir ba seen xol sa mbooy leer mag ak ndaw ku ne lu mu jëkk a wax yàlla màgg tey buur turam woowa nay riir ba seen xol sa ngooy leer mag ak ndaw ku ne nee na ëmb na lépp ëmb na lépp loolooy dama ni sama borom ñi la garantie ndax ray nañu ñan ñi dégg nga wa yaxtiru nabina bi khairil haqq wa yaxtiru anbiya bi khairil haqq ñu ngay ray yonent ya ci lu dul dëgg lan lañ leen di reyee ngir li taxaw ci kaw suuf nit ñi def yalla mu yalla nit ñi def yàlla mu yàlla bay yàlla ca la mu doon wala déet lay Mamadu lolo fi am nañu bàyyi yàlla ci yàlla yàlla moy yàlla li lañ leen fàggagal mu ne leen yende garanti na leen ñu ci dess nak doylu na man bo degge alhamdullahi rabbil alamin moy ala ghaniyun ala al ibad an ibaadi yàlla ku doylu la walis ay jaamam ña ca des yàlla nee na nañu góorgóorlu ku ci mën a fekk si ñii moo gën ci yow ku lànk bañ leen a fekk si ah di nga dajeeg ñi nga war a dajeel dama ni laa yéen kii bu ahlu laay ah muus ba ñu demee ba bay turu yàlla àddina wóoratul nee na ma defoon yéen lañ koy askanale walla déet ahlu laay lañ ko fiy wax looloo tax ñu ami may waaw waaw ahlu laay lu ñu jagleel xeeti may ñoo am ngëneel képp kuy saakoo di xéewal jàppale ñoo am maxaam laa ilaaha illa laa laa ilaaha imaam saxir ne waaju leen méngool dinay am ndam ëllëg yawmal xiyaam waaju leen bañ baal mu fas leenal ku dootul doon alaam neena buñu bëggé lolu continuer ñu diñu ko waxal kon nak nañu tek suñu tank fofu rek waye buñ ko bayé mam babakar neena yema ñep rabbi yakilla ilaha illa mi sayfulay لا إله إلا الأمي سيف العين سيدي بني أنا دقل لي مو ينان يعني، دخم ننسون أستطيع لا إله إلا الأمي سيف العين نانا يلا بوكو يدقل التماس لن يكون تودي دعاي نان buma lay digal loolu digal la dama bëgg nga jóg def nangam yàlla kenn du ko forcé xam nga day ñaan danu yàlla sa xalal laa ilaha illallah yàlla dooleel la ilaha illallah lu tax ci la sunu sécurité nekk àddina ak alaxira ألق بني دمي نكسينا بابا كروخي بابا جيجي سرات نانا نتبات لجي وخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحان الله وبيامدي سبحان الله العظيم وبيامدي واو نينتال با موم لا نيو خار نيتي باد ياب liñ ko wax dara du yëngu da nga ne bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده sàng bi nee na dër yënguwul sunuy xoole ngi ci sunuy prox ndax am tiit kërool yëpp jóg ba yëpp xeeg donte yaa ngi ànd ak gën gi du tax sam xel dal yàlla feeg duggoo ajjana sam xel dalagul waa ma ni li ñëwul sang bi ne li ñëwagul lan la ba dara yënguwul ñu wax lii dara ñëpp ni teg ñu wax la ca des lépp ni teg kon am na lu des ñu ne laa ilaaha illallaa إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله نانا مام سيدنا بابكر نانا ba ñu ko waxee ba daaneel rek ñu gis siraat sunu ginnaaw ñun xamuñu ñoo ko jéggi xamuñu siraatu du jéggi nee na doole laa ilaha illa laa dafa ñëw ah laay Mamadu nee na waxantu wunu wutuñ ci dara wala déet ñun ay jaam lanu ay taalibe lanu ñii la ñuy wooteel ñii lañuy ñuy topp ñuy wooteel ki waral lépp moo tax góor gi ci yaasin ñu di ko way léeg-léeg Yusufa Najaar ba mu ñëwee dani yaa qawmi ittabi'ul mursaliin ittabi'u man laa yas'alukum ajran wa hum mu'taduun topp leen yonent bi ci seeni wax ak seeni jëf ak seeni jikko ñooñu luñ leen laaj ak pay ca lañ leen di woo duñ leen ko laaj te mënoon nañ leen ko caa laaj ñii ñooy yonent yi ñooy kuuyu yonent yi ki ñu jàkkaar lool yàllaa ko def nii bind ka defaral ka boppam protégé na lii ba jóge fi ay rakkam noonu ay doomam noonu ay sabam non kon lay Mamadou bu kenn ni waxtu wi dem na déedéet ndax li may wax yàlla sunu borom lay waxal ay mbiram bariyaanu ñuy jàmbatu naaj ci sunuy bés ko sa lépp di kar fi ci adina sa lépp diw naaj àllaaxira laa hawla wala quwwata illa billah maa ko wax de ku sa lépp di kër fii ci àddina waajalal te xam ni alaaxira sa aw naaj ngay doon te naaju alaaxira alaay Mamadu yamul ak naaj wii de walla déet amul ci kaw suuf nit ku baax am solo ci sunu borom léppam di ker ci àddina sunu bàjjan bu baax ba maam umi mu sell mu tedd ma daan na wax ni alaay Mamadu sunu baay yu baax yi sunu njiit yu baax yi sang yu baax yi mosuñoo xam bànneexab àddina tàmbalee ko ci waajuram Seydina Issa Rouhou Laye Seydina Ama Ndione Seydina Babacar wàcc ci sooni doom yu tedd yi mu ne xamuñu luy bànneex àddina ba ni ñu demee ay naqar ak ay tiis bu ñëw gën a rëy bi weesu naqar yooyu métit yooyu la ñu dund ba jóge fi loolu du ker dañu jaay bànneexam àddina jënd ko dañu jaay bànneexam àddina jënd ko bànneexam àllaaxira am nañu jaay bànneexam àllaaxira jënd ko bànneexam àddina kon laay mumbudu loolu xam naa mujj noo doon waxtaan wi waaye nag noonu la noonu la dégg ngeen li ma wax léegi ci soxna maam xarit nee na sang bi noonu la doon tudde yàlla bu wéetee waaye da ko doon tudd pour wéttali ko bu masaa dem maanaam bu masaa toog demul ca tànt ba day jël xalimaam laaj këyit bind ay xeeti zikrullah daal di koy yónnee ca tànt ba ne Seydina Issa Rouhou Laye nee na tànt ba lii la fa bëgg sikar tey kii laa ilaha illallah sàmm dëggantaan la mu ne lii laa bëgg a dégg tey ngeen wax ko ca tànt ba te daawul xaw a génn nag tur sama borom yàlla màgg tey buur turam woowu nay riir ba seen xol sa ngooy leer mag ak ndaw ku ne sang bi ne jël naa waxtu waaye nag laay Mamadou noonu la ne dafa am lu muy xaw moytu rek ci njalbeen gi dama ne leen tey nag jàkkaarloo ak koo xam ne sikar rek la bëgg